alhamdulillahi alkarim zilminan والفوز والعمل بالمعلوم ثم الصلاة بسلام تبعا على الذي قصدي على تبعا على الذي من بمراد كنت منسوبا إليك منك بك عليك ورديت عنك مفوضا مسلما إليك برسله وببنيه وبناته ملا ليسمعوا في سريعه

اصطفى يا غافر الذنوب يا غريب إني عبيد ها هنا غريب لهب ذاك ولإخواني جميع سعادة الدارين حقا يا سميع هب لي في هذا الدعاء الإجابة بالمصطفى fii ci Touba la bokk euh, ci baaxuk sëriñ Touba bañ ci daata def daal dañoo dem laaj ko ko parce que ñu ngi fi sanc 2006 ci ndigalu Serigne Saliou ci ndigal rek lañ fi doxe biñ ko sancee ba agsi fii nga xam ne suñu xel dafa nekk ci def fi parc dañoo dem laaj ko ko wax ko mu jox ñu ndigal ne bokk na ci li taxawal yokk université bi ndax bokk na ci programme boo xam ne xam-xam la euh, ndax ko ne dañ ko war a jàng biñ ci jubook ñoom moom nag ci lañ jóg taxaw pour fexe taxawal ferme bi fii mi ngi ci Baxdaat ginnaaw Baxdaat diggante Baxdaat ak Kàddu Ballooji diggante Kàddu Ballooji ak fii 3 kilomètres 500 la. bu la neexee nga jaare Naydé mbaa nga jaat jaare biir Baxdaad boo fi ñëwee parc la boo xam ne rab yëpp am na fi euh, loolu it ñu ngi ko tàmbalee ci yeew euh, bonaat yu mag yi muy xun ak euh, ay golo ay xeeti golo jësit tan baam àll ñaari xeeti bukki ñu ngi fi ak gaynde yi faw jey ni Euh, loolu it euh, doon loo xam ne démb rek bi may dem di seet sëñ Muntaxa di ko laaj ndax màggal gi am nañ sañ-sañu bàyyi ko nit ñi dem seeti ko dana ma am ngeen am nañ ndigal li dana ma am ngeen ndigal li te jox nañ leen ci ndigal ngeen bàyyi nit ñi foofu seeti ko ndax bokk na ci kiimaani sëñ tubaay ndax gaynde ci biir dëkk bi ak ni mu fi gëje mu ñëw fi am loolu dama ciy sant yàlla bi mu ñëw fii gaynde yi di ñëw dafa waxoon nañ ko indi ci moom ñu yóbbu ko ci moom mu ñaan ci ñu door koo indi biñ leen indee fii ak tey ci jàmm lañu nekk euh, ndax amuñu benn jafe-jafe ñu ngi ci jàmm loolu yi ñu ngi ci collaborante ak euh, waa environnement muy waa eaux et forêt taxaw di ñu wan naka lañ war a def taxaw taxawaay boo xam ne taxawaay bu rafet la ñu ànd ko ak ñun luñ ñu war a gungee gunge ñu ba noppi yemuñu ci lool sax jël xale yi di leen yóbbu Dakar di def ak ñoom ay formation di leen former di leen si waat kon nag nit ñi nañu xam ne euh, bunt bi ubbi nañ fii lu tax ñu gën ko ubbi mooy màggal gi ku am say gan nga ne am yóbbu nga leen jumaa ñi siyaare ji war a toog rek mën nga leen indi wan leen park bi ndax bokk na ci eh, yëfi tuuba ñu nit eh, baaxuk sëñ Touba rek moo ñu ci boole dañ fi yarit jën ñaari xeeti jën yu bokkul muy eh, tilapia ak yas ndox mi ñuy utiliser ci jën yi moom lañuy yóbbu ci tool yi di ko béyee danañ fi bay kaani basante jaxute ak kaani cuukali ak yeneen ak salaat ak yëpp dañ ko fiy def mais yemuñu ci loolu ren bay nañ fi pomme terre bay nañ fi soble ñaari saison def nañ ko fi loolu nag moo waral ñu xam ne kon li nit ñi doon jógee fii ci dëkk bi di dem ci yeneen dëkk di fa liggéey nañu xam ne baaxuk Serigne Touba buñ ko toppee lu ne mën nañ ko fi am kon nag war nañoo góor góorlu ba fexe ba euh, dëkk bi ñu xam ne euh, lépp luñ war a mën a def am na fi euh, ñu bañ ko ñu fexe mu mu avancé ci moo gën loolu moo waral tey jiit gis nga xale yi def visite kilifa yi. kii do sëtu sëriñ Fallou la ñu ngi koy ziar bu baax mu doon kilifa goo xam ne doomi siñ Mourtala moom sëñ Fallou la euh, mu ñëw fi ànd ak njabootam ñëw seet si Fawzeyni ak euh, visite ferme bi kon loolu it euh, dañ koy sant yàlla ndax kilifa yi ñu ngi fiy ñëw bu baax a baax te loolu lu am solo la ndax seen yëf la ndax képp koo xam ne yaa ngi liggéey sëñ Touba rek sa yëf la fii it sant nañ ci yàlla bu baax ndax courant am na fi Euh, macha allah góorgóorlu nañ ba indi fi courant ak ndox tey loolu jàpp nañ ne dana gën a dundal dëkk bi ndax jàpp nañ ne dëkk bi dana gën a mën a dox jëm si fii moo tax dañuy sant yàlla bu baax sant sëñ Touba ci ni ñu si waxee ne da ngeen ciy liggéeyal sëñ Touba danañ ci gën a góorgóor di ñaan Sénégal yi murid Sénégal yëpp fu ci waaye gis loo xam ne aw rab la woo xam ne jàpp nga ne war na mën a ñëw ci ferme bi te bu fi ñëwee dana dolli kiimaan yi ñu wax ñu ko ñu dem jëli ko fu ne la ñuy jëlee ji ay rab di ko indi fii te loolu am solo la te jàpp naa ne ñëpp ci war a jàpp ndax yëfi ñëpp la euh, man maa ci gën a néewle ndax man euh, engagement bi rek laa am ak xalaat bi ak taxaw bi waaye murid yëpp ko bokk senegale yëpp ko bokk. Fawzeyni day euh, baaxuk sëñ tubaa tax na maanaam lewetaay gi foo ko takk weesu na ko damay wax ne gaynde yi bokkuñoo ak yeneen gaynde yi gaynde gu dem ci sëñ tubaa mu ñaanal ko mu tuddee ko Matlabul Fawzeyni benn bi Fawzeyni jàpp naa ne li ñu jàpp ñun te te ñu gëm ko. mooy bokkut ak geneen gaynde raw nañ yeneen gaynde yi ni beneen nit jóge feneen dem jëbbul sëñ Tuubaa noonu la gaynde yi rawe yeneen gaynde yi euh, damay wax sax ne baaxul sëñ Tuubaa mënut euh, ñu ne dañ tubaab bi dañoo boole woon ak gaynde mu nekkoon nag moom ñu ne gaynde gi jëbbul woon ak mbaabaal ñu xëyaat suba fii ci biir tubaa bi ñu indee gaynde sëñ Muntaxa dafa wax nañ ko yóbbu euh, Fawzeyni bi ci kër sëñ Saaliw ñu yóbbu ko fa kon gaynde delluwaat na Fawzeyni

يدي وأنت سريعا حيث أن وتدخل المسلم في يدي وفي داري وثبته بالهادي وفي وعلمي وعلمي يعينني وتكفيني جملة ما يعينني وسر إبليس وكل سجود والجن والدجال maa ngi tudd du Sow jóge ko dëkk bu ñuy wax Amérique ànd ak sama doom mhm. mi ngi tudd Maam Faty. waaw danoo màggal si. Mhm. waaw place bi dañ koo dégg biñ ko yëgee si ak léegi yàggul ñu dégg ni dañ fi am ay bagage yu mel ni comme ay gaynde ak lan bukki mu intéressé wu trop sama doom bi moo tax ñu ñëw seet si ko. xanaa yéeme ak rafet parce que lii lu baax la ci dëkk bi lu koy naatal la ñu mel ni man amee tout tànk ñëw ci dëkk bi dañuy bëgg di gis lu mel nii. Mhm. ni boo fi amul ko fii dem Dakar yeneen waaw ah, naka laa koy waxee last time bi ñëwee woon fii fële leen ko gisee woon Bandia boori Dakar. te ñun ñu ngi jóge fii fan Aliya fii ak Aliya xam nga soriwul wala ñu doon paas dem fii ba Dakar dañuy ñëw fii fii moo gën a jege tu près lu tax ñu ñëw seet si fii man maa lay gërëm di la sant yow jërëjëf say say say something we're gonna be in TV. <laughs> America. You like it. Mm-hmm. Right. What is that? It's a lion. Who is, what is his name? Simba. Simba <laughs> and? Um, Nala. Marufozini. Marufozini. Okay. Okay. okay.